waaw mais en tout sant yàlla bu baax euh, def na li nga xam suñu devoir wote nan wote bi am na solo ndax population bi génn nan ku ne xam na ne tey massivement koor la moo tax ñu ñëpp teel a xëy ñëw wote si gis nañ di aussi situation bi parce que li ñuy xaar mooy incha allah ñu xaar ba 19 heures man mën a tànn ki nga xamante ni moom la war a mais li ñu ñor mooy def na li nga xam mooy suñu devoir dañu sant baax incha allah jërëjëf sooy remercié incha allah jërëjëf.